ma ne ñoo ngi nuyu ñi nga xam ne ñoom ñoo fi teew yëpp tey fii ci hôtel de ville bu Guédiawaye ci bis bi nga xam ne bisu passation de service la ñu sant ñëpp na gërëm ñëpp dooree nuyoo bi nag si kilifa gi nga xam ne moom lañ fi fekk ñu monsieur Diawara mi toog mooy secrétaire général u mairie bi moo nekk ni sama ndeyjoor ak l'inspecteur des services Cheikh Baba Ndiaye ak euh, DRS bi tam mi ngi fi di directeur des ressources humaines ak directeur des affaires financières di DAF bi ak agent yi nga xam ne ñoom ñoo fiy liggéeye yëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci dalal bi nga xam ne dalal nañ ko tey fii ci bis bu màgg bii di sant tamit nag suñu waajur yi ñi nga xam ne ñoo fi jógee yàlla na leen yàlla xare àjjana ñi nga xam ne ñoo ngi fi tamit yàlla guddal seen fan suñu présidente des femme bi nga xam ne en plen campagne la fi jëkkëram jógee di doyen Adama Dieng ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla xare ko àjjana moom ajaratu ne na mbaay moo toog nii en bleu nekk ci liggéey waaye bokkoon ci xeex bi ma waral teewaayam démb ak tey ñu sant nag suñu kilifa suñu mentor comme ni ma ko waxee démb suñu xarit suñu dëkkandoo ñu dëkkandoo mbodd 3 fii ci Sam Notaire di la président El Hadj Malick ah sant tamit. conseil Yewwi Askan Wi yëpp nga xam ne tey ñoom ñoo war a lii ci seenum ndigal lañ ma wax démb barki démb ne ma démb bu ñuy installé dañ leen ko def la maire honoraire de la ville de Guédiawaye kon moom mën na dégg monsieur le ministre nekk na ko ñaari yoon moom El Hadj Malick mi ngi dégg monsieur le président ni ki démb nag waa Géejawaay dolli nañ ko ci beneen ndomba tànk muy monsieur le maire. te loolu tam moo ko liggéey yor na parti mais jàppale ñu ci campagne en commençant par man mii nekkoon le candidat de la ville candidat yu nekk ci cinq communes yëpp mu leen doon bàyyi xel. di leen gunge jàppale ñu ci côté yëpp candidats yi ñoo ngi fi ñoom candidat yooyu tamit ñu sant leen gërëm leen parce que maire ville bi nekkul ne bis bu nekk mu nekk ci juróomi commune yëpp tant que population bi ñu ngi doon gis suñu candidat yooyu rek dañ doon gis Ahmed dar ma doore ko nag ci jigéen ñi la galanterie oblige suñu mag suñu xarit suñu jigéen ñu yàgg nag lépp rafet muy ajaratuñ jéemee baax ñu sant tamit madame la maire bu Sam Notaire Aminata Kanté mu daj moom it lu ne sonn dégg lu ne ñu teg ci tamit suñu rak di Khadija Maye Koor di maire golf ak suma mag suma xarit Tahirou Konaté di maire bu Wakhinane Nimzatt ak maireu Ndiarème Limamoulaye Khalifa Ababacar Thiam nekk suñu sëriñ ñooñu nag la waa Yewwi jiitaloon waaw ñëpp nag jàpp ci président des jeunes Yewwi département bu ma ko tuddee tudd naa jeunes yëpp su ma tuddee madame Aminata Faye présidente de femme moo ngi nii toog département tudd jigéen ñëpp ñu sant ñëpp daal gërëm ñëpp ñi nga xam ni ñoom ñoo ci nekkoon gërëm tam la presse parce que ñoom it dañoo bokk nag ci liggéeyu woy politique yi ñu sant leen gërëm leen bu baax maa ngi leen di tooñ démb ne leen j'étais votre candidat le candidat de la presse ñuy ree waaye léegi presse bi léegi am nañ maire waaw ñu sant ñëpp da waaw ñu sant ñëpp nag gërëm nag ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñi nga xam ne tam ñoo ci amoon ay gaañu gaañu ay blessé ñu masawu leen bu baax a baax coono léeg lépp daal te xam ne nag mbir mi nekkul fet keroog bi mbir mi jeexee ñu ne kañ la ñuy organiser ay sargal ma ne leen jarul sargal caravane nañ waa Géejawaay waaye gis nañu jeex na ko defee nag comme niñ ko waxee woon rek monsieur le président altine lundi incha allahu rabbi ñu ñëw liggéey waxtaan nañu ak le secrétaire général de la mairie monsieur Diawara tout est calé attente bi moom ñëpp xam nañ ko waay ni affaire bi demee woon jàpp leen ne ñëpp ñuy xaar lu ci waay jàppoon tamit nga daal di koy dolli ñu booloo nekk benn liggéey suñu gox bi nga xam ne ñun moom lañ am di géejawaay comme ni ko Omar Seck waxee sant tam njabootu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ma bokk fa ñu toog nii tey ahlul baytul rasul sant tamit la communauté chrétienne parce que ñun moom dañ ci am ay présidente yoo xam ni lu ñu def ñoom tata Eugénie ay tata Émilie ak ñoom Joseph ñooñu lu ñu def si juróomi at yi fu ma dem il faut ma tudd leen te ñoom nag dañoo am benn lien ak suñu président bi ñu séq yoo xamante ni nii nag moom El Hadj gàkku Gakou ak la communauté chrétienne bi nekk Sénégal loolu moom débat boobu sax xam naa ne du fi xëj ñu sant leen gërëm leen pour vous diir que ni ñëpp jàpp nañ ci. gërëm nos imam ci ñaan yi gërëm gërëm les délégués de gërëm bàjjenu gox yi gërëm ñëpp. ñëpp ñëpp ñëpp la jeunesse gërëm tamit la jaspora doomu géejawaay yi nekk bitim réew jàpp nañ ci jàpp boo xam ni buñ ko fi doon expliquer di ngeen ne ndax ndekete ñooñu doon nañ ñu bàyyi xel gërëm nañ waa jaspora bi doomu géejawaay yi nekk bitim réew même ñi nekkul doomu géejawaay sax te déggoon na ñun ñu ngi ci li géejawaay nit ñu sotle ba ma neexee ma waxe ni ëpp na kon ñooñu tamit Mor jaw moo ngi nii nekk témoin ñu boolewaale leen ci bu baax a baax a baax waaw loolu daal tey moom moo nekkoon message bi nga xam ne moom lañ doon livré hmm? waaw bu ko defee nag kon ñoom moom gërëm nañ leen sant nañ leen bu baax di waa diaspora bi ñi nga xam ne tam ñoo nekkoon ci cabinet bi gënoon ñoo jege ñi ñu woon ci communes yi ñëpp a jàpp waaye ñi nga xam ne tam dama àndoon ak ñoom benn instant dañoo bàyyi sax seen i parti nag topp ma en commençant par notre directeur de campagne di Mamadou Thiam nekk suñu directeur de cabinet moo nekk nii toog en blanc ñu sant ko gërëm ko bu wér Mbacke Gueye bu pur li mu def ci administration bii ci suñu élection yi li mu def ci wàllu massification moom mbake te kenn kenn kenn kenn du ko dégg kenn du ko dégg un travailleur un homme très digne xam naa lu tax muy utiliser le mot digne Mbacké merci beaucoup le président Djibril Diop ñu ngi nii toog ak Ramatoulaye Bodian ñu naan ko Rama Bodian bu Pastef moom tam moo ngi fi ñu ngi fee toog waaw en tout cas sant ñëpp daal ñooñu ak suñu porte parole bi nga xam ne mosu ñoo sori monsieur le maire Mor jaw bu grand parti waaw ak nag ñi nga xam ne ñoom ñooy suñuy mbokk ak suñuy dëkkandoo ak waa géejawaay même ñu nekkul waa géejawaay sax te doon jàppale waaw ñu leen di woowaat encore une fois ma répété waat ko rek au travail waaw bu ko defee nag gars lu ñuy xaar daal mooy la rupture waa géejawaay dafa am lu fi nekkoon ñu ne ñoom loolu gënalu leen yéen waa yeewi yen lañ bëgg kon ñun bu ñëwee waxuma sax nañ leen def ñi fi nekkoon liñ def waaye dama bëgg ngeen tripler ko wala ngeen romb ko sax di dem te loolu yaakaar naa ni bu ci administration bi jàppee mooy les agents ñi nga xam ne tam ñoo nekkoon sur le terrain mais surtout les conseils ñu sant ñëpp nag gërëm ñëpp di leen xamal ne nag loolu daal lañ amoon luñ leen yeggee kon tey ci bis bii nga xam ne bis bu màgg la sant ñëpp gërëm ñëpp.